place ak ñaar loolu yombul ah loolu dafa nice waaw yombul te dañuy soog door nag ñun bi ñu door ak léegi ñaata weer la yàggul dara ñu ñu mën a raw ñoo xam ne wax dëgg yàlla investir nañu ay xaalis yu takku defar nañu ay matériel lu ne def nañ ko te kenn seenu leen sax ca list ya ñun ñuy soog a ñëw sénégalais yi bëgguñu accueillir ñu dalal ñu donc euh, wax dëgg yàlla loolu liggéey rek moo ko maye kenn du xeeb li nga def na en tout cas dañuy gërëm bu baax a baax euh, l'initiateur de cette chaîne euh, parce que euh, loo gis lu ne rek dafa am koo xamante ni moom moo ne ci kanam ki nga mm-hmm. xamante ni tey moom moo am dooleem créé li nga xamante ni moom mooy chaîne bi ñu njëkk a commencé nag ci blabla blabla tey moo dem nag ba jur seen Teranga TV mm-hmm. le PDG ñu ngi koy ziar bu baax di ko ñaanal monsieur Seck mu yàgg fi lool te ànd ak wér sunu directeur it monsieur Diop ak personnel bi parce que tey jii boo gisee liggéey bi àgg fii ay sacrifice la yoo xamante ni def ngeen ko fi muy ay góor ak i jigéen yoo xamante ni guddi ak bëccëg dañuy xëy huit heures wàcc vingt trois heures. Mm-hmm. huit heures vingt trois heures. Mm-hmm. ñëw nga ci lépp dama daan toog ba mu yàgg man leen yéen moom seen yére yëpp day xeeñ xetu télé. parce que franchement liggéey bi da ngeen koy def te mosu leen onk mosu leen dellu ginnaaw donc yéen aussi jar ngeen ñu jaajëfal leen. Mm-hmm. mais pour le moment nii li ñu leen def rek mooy dañ leen di encourager te di leen ñaax. ndax dañuy soog a door xam nga hmm. kuy soog a door te dañ lay ñaax ndax la daloon sama waaja ama am soxna séeg moom at euh, euh, def nag euh, togg yu <laughs> na day gërëm soxna si ama nee na kurita nga fa woon biliyaa ama toog mu naan waaw maa ngi gërëm sama soxna si parce que mu na ma ma ba ma ba ma ba léegi ñëpp dañ may xoolaatee na neen sama tee bi na sama yëpp ngi al waaw wax wax wax rek ni Pa Ousmane comme yaay sama grand dama lay jox param mhm. ma ne ah asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen nuyu yéen ñëpp waaye da leen laay wax man soxna madame muruma ma ne ko madame man du ma la gërëm <laughs> man du ma la gërëm de parce que gërëm dafa teel mhm. ndax un a de mariage du ci gërëm nit ah, mhm. ma ne ko dama lay ñaax dama lay ñaan nga na nga jàpp ci sëy te jàpp sa borom kër mu moom sax mi ngi xaw a sëkk ba pare ñoom ñaan ñu def seen ay nuróole. waaw moom jabat yëpp ñu def seen ay nuróole toog nag waaw maanaam de mariage. quatre mois après lay sëy ba tas. c'est vrai wallaay. ba ma woowee ma xëy rek mun ma Pa Ousmane. mu ma mun ma diw dem na ma ne ko diw dem na fan munuma tas na. nee na ma naa ko may baat. wax naa ba sonn nee na ma naa ko may baat may naa ko baat ma ne ko da gaaw a gërëm. dëgg dëgg bul gaaw a gërëm. moo tax fu ma ko waxee day ree actuellement ma nga Gambie. Euh, nekk fa ci télé bu rëy. Star TV macha allah di fa def rëy rëy mhm. euh, léegi laay la ko def. ma nga fa nag di gérer. waaye ama bu dee yaa ngi seetaan gaaw a gërëm baaxul moo tax it duma leen gaaw a gërëm. <laughs> dama leen di ñaax. ba ci kanam di leen encouragé ba ci kanam. te xam naa ni macha allah rabbi ay xale yi am ñam ngeen. macha allah laf cat ay xale yu bëgg la ngeen di def ngeen ay xale yu bëgg liggéey ngeen te incha allah rabbi le meilleur reste à venir. incha allah le meilleur reste à dara euh, sotteegul te itam dara ñoragul nañu xaar tuuti gën a góorgóorluwaat gën a yittewoowaat liggéey bi te bañ koo euh, yàkkamti donc seen teraanga dafay gën a taxaw gën a liggéey li juste encouragement la mais nekkul. loo xam ne dafay tax nag ñuy bàkku ñun bàkkuwuñu dañuy liggéeyaguñu nag quand wax dëgg yàlla parce que li ñu gis fii nekk guñ liggéey donc euh, c'est bon ñu dem ci ki nga xam ne moom moo di euh, Belia mu nuyoo laata ñuy door ci li nga xam mooy jotaayu people gi te yéen ñëpp ngeen koy xaar d'ailleurs am na lu bari lu ñu war a waxtaan xeetu Belia yi waaw <laughs> en tout cas <laughs> si c'est bon alaaji baara nga wan gaa ñi Belia su ko defee mu nuyoo ziar mbokk yi nga xam ne ñu ngi seetaan partout dans le monde entier maa ngi nuyuwaale nag euh, awa mbuub Ami Ndiaye am na sama yaay joo xam ne tam Gàmbi damaa demoon këram wax dëgg yàlla mu téye ma ci daf ñu tëye ci kër ga nañu force du ngeen génn. Mhm. daf ñoo tëj xam nga tëj. dafa yóbbu yóbbu ñu ci kaw këram ga kenn ku ne mu jox la néeg néeg boo xam ne salle de nga ca. Ah. Mhm. dajj ay serviette tam yu bees tegal ñu fa. dañu lakkal ay ginaar ñuy lekk. Oh. ñu war a ñibbi mu ne war leen a ñibbi. dëgg yàlla mu ne dangeen a war a toog tiir xam nga tiir. waaw original diw tiir. Mhm. moom léegi mooy doomu tiir bi. waaw ay dix litres bi la ñu jox. yóbbaale ñu yóbbaale leen seen kër yi. ak ay piisu jasner pour suñuy soxna yooyu yëpp ki ko def. ak ay 200 yooyu ay 200 waaw. ak am solo. ak am solo am na koo xam ne mbaa kutu compter moom du la jox 200 bu gàmm bi de xam ban la lay jox bu Amérique bi la lay jox. yii booboo gën a fort. waaw boobu la lay limal nii naan la am yóbbaale leen sa kër yóbbaale donc Bilia ñu ngi lay nuyu bu baax. maa ngi bopp la jéeri kurita Sarr Sarr Guilem ba tey ziar bu baax a baax a baax. di a baax di nuyu képp koo xamante ne fidèle nga rek di suivre Sen Teranga TV la télé de l'hospitalité mbégte laa am saa su nekk ñu bokk plateau Teranga People ñu fas yéene faram ak joxe actualité bi ñeen people euh, showbiz buzz lépp dinañ ko ci waxtaanee incha allah rabi di nuyu waa diaspora bi bu baax a baax ñu nekk ci hôpitaux yi leen ñaanal wér ñu delluwaat seen i kër ñaanal prisonniers ñu delluwaat seen i activité te génn fañ ne ñaanal way dellu yàlla xaare leen àjjana te jéggal leen seen i bàkkaar Alioune Badara mhm. mu ngi noonu 200 yi euh, Pape Ousmane wan nga two hundred yaa ngi nii gis nga two hundred yii ma demee ci aw mbuub yii nii two waxuma waxuma hundred yi de two hundred yi la ma yaba yaba yaba ba keroog sama saak laa ko mujjee def wallahi asi billahi two hundred yi moom mooy balalu deux deux mille fii lay lay lay ah. deux mille mais ba ma ko weccee ko ah. Ah, damaa kontaan ndax la ma jox a bari boo gisee one hundred cent mooy mooy mille francs mooy mooy mille francs fii gars yu bëri nag dañuy réer fifty bi mooy cinq cent Euh, fifty cinq cinquante mooy cinq cent. cinq cent waaw waaw. gars yi dañuy réer bu bëri maa xam Gambie léegi. ndaay léeg laa Mouhamadou ah dem naa fa benn taximaan jële ma fu gàtt di ma yóbbu fu gàtt fayeku ma mille cinq cent franc. ma ne ko baax na dama ne fa waaw. parce que xamul ne xam naa. diggante Sénégambia ak hôtel boobu ñuy wax. Euh, kii village bambou village. Ah. hôtel bambou village. nga xam ne dama da nga koy dox diggante boobu. Mm-hmm. saa fay ko mille cinq cent ma ne ko nañ dem. waaw c'est normal ñu dem ba àgg mu gaari ma ne ko sawaay xam nga ni fii mille cinq cent jaru ko de man yàgg naa ñëw fii fii mën naa ko dox dama yàkkam ci gis ak bagage yi ma yor mu ne wax nga dëggaade ndax waaw dama la doon bàyyi rek nga def après ma xamal li ne man sama bopp bi mu ngi fi ki ngay waxal ni journaliste la damay xam ay information laata may ñëw su ma neexee te yàgg naa fay ñëw mu wax reetaan mu wax ree ma jox ko tuuman ma jox ko euh, hundred fifty dalasi mooy mille cinq cent voilà mu ngi noonu Gambie daal yàlla na fa jàmm sax ndax tey gis naa nañu def suñu président bi dalal ko mm-hmm. teral ko teeru ko tatagal ko aj ko ba ci kaw a kaw mm-hmm. ah loolu daal kontaan nañ ci yéen bu baax a baax a baax a baax donc dañuy dem ci suñu euh, li nga xam mooy programme tey bi le dafay yitteel dañuy dem direct ci mariage bu mama mama mooy doom ci Aziz Abdou Aziz Alé Ndiaye bi nga xam ne yaayam nekkatu fi maanaam nekk jamono da doon Euh, am borom kër ñu ki euh, tey waaye démb ci anytime ba la ñuy gën a concentré wu ñun waxtaante parce que anytime ba dafa xew dafa daal di bari anytime ba dafa am bari na ndax anytime bi bokk na ci la fa am lañuy ñuy njëkk mooy Aïssa Rassoul dafa génne lu toll ci ñaari parir en or parir en or nag lu seer la boole kook bàgg en diamant lu gën a seer a ngi noonu tegtal ci un million daal di koy jox doom ci Aziz Ndiaye daal di ko koy eh, terale donc teraanga ji toll noonu nag nga yëkkati ko jox ko sa doom borom kër boo xam ne yaay ji nekk fii am na lu muy symboliser quand même te foog naa nag eh, jigéen ñi yéen war ngeen xam loolu koo xam ne yaay ji nekkatu fi ah war a sëyi ji pour nga fàtt peut xam naa dañ naan dañ fàtt eh, absence yu yaay ji mhm. pour jox ko loo xam ne quand dina xaw fees ay bëtam tuuti Mm-hmm. pour ñu mën a kii euh, pour état mooy jàngatee yooyu yooyu geste am na ñu naan nag xaalis bi bari na di fa def nangam nangam mais pour man man loolu rek laa ci gis mooy nañu fàtt bi di waaw xam nga tey euh, nit ndeysaan nit ku nekk bu fekkee yow da nga toll ci ci am boxam kër nga wax a sëy wax dëgg yàlla da ngay bëgg sa yaay mu nekk à tes côtés euh, jour boobu noonu am na si ñoo xamante ne sax dangay gis ni euh, seen jour mariage dañuy jooy boo leen euh, ñu bari dañ leen naan noppil mais dañuy bëgg dañuy naan sama yaay moo fi manqué bëggoon naa mu fekkee ko léegi peut-être vide boobu noonu nga xamante ne si am na looloo tax tey Miss Ndiaye mi nga xamante ne mooy jabar ci Aziz Ndiaye mu ñëw tey bëgg fatt vide boobu ndax moom dafa toog mu ne man kii nga xamante ne dama ko jàppee comme doom bi ma sukk jur nee na moom yemale daf ko yemale ak ay doomam yi nga xam te ne si jur na ko ba tax na nag bësam bii moo tax dafa ñëw teew ko en tant que yaay booy gis sax bool yi nga xamante ne xam ni ñuy yebee doom boo ko gisee sa yaram day daw maanaam kër ga dafa fees dell ak ay bool ay extensible de cuisine ay bale amul dara lu manqué daal ci li nga xam te ne si euh, yaay war na ko yebee doomam wax dëgg yàlla mu doon loo xam tam sii ñu bëri dañ koy rafetlu man de ba ma gisee image yi vraiment dama ko rafetlu mu toog nag def témoignage boobu mii sa ngi toog lam ko yebee ñëpp ñëw ngir yooyu yëpp wax dëgg yàlla dëkk bi yëpp ñëw mu wal ne li nga xam te ne si moom yebee na ko doomam parce que nee na moom amul benn euh, euh, kii nu ñu koy wax te euh, féewale c'est-à-dire de distinction entre ces enfants ak doom yi nga xamante ne si mooy doomu Aziz Ndiaye te mu doon loo xamante ne si ku ci nekk danga nga ko rafetloo xam nga tey nit mën na génn àddina tey mais sa xel du dal parce que da ngay naan sama doom tey bu demee ba am bés nii wala bu demee ba dugg ci néegu sëy est-ce que tey man euh, dinañ ko taxaw man en tant que yaayam ni ma ko waroon taxawoo mais dañoo gis ni franchement taxawu nañ ko bu baax a baax ñu dem ba tamit gis nañ tamit euh, ci jour xam naa loolu waral démb ci anytime bi ci boppam euh, xam nga en général anytime daaw ñu fi gis góor mais xam naa tey pour compenser vide boobu tamit tax na tey papam ay rakkam góor yooyu yépp wax dëgg yàlla démb gis naa góor yi bari ci anytime te anytime mu nekkoon loo xam te ne si en général jigéen rek moo fay dem mais gis nañ ni ay bàjjenam ak ñëpp wax dëgg yàlla ñëpp ñëw teewe anytime bi pour lan pour pour pour pour compenser ce vide mais tamit pour euh, qu'elle ne se sente pas looloo waral démba anytime bi comme tout lekk maa li foo sànni kii mu tàq moom wax dëgg yàlla tax na sax ba démba Seydina Aline euh, démb moom dëkk bi yaakaar naa kenn nelawul ndax anytime boobu noonu euh, mu nekk loo xam te ne si peut-être dañ koy rafet rafetlu ndax gis nañ fa ay ñoom griot VIP Alassane Ndiaye gis nañ fa ñoom ñaaxarañ loo sax gis naa ko fa muy baatare ñoom jolay taal maanaam kenn desul daal ci anytime boobu noonu euh, kon looloo lay won ni Seydina Alioune peut-être euh, dañoo demoon pour pour may ko doole pour wan ko ni bien vrai yaayam nekku fi waaye ñoom ñëpp euh, ñëw nañ teewle ko ba pare gis nga tey Seydina Alioune nga jël xaalis bu bari nga jox ko doom bi nga xam te si peut-être ci yow la yaroo yaayam génn àdduna loolu du pertement yow loolu sa sa sa sa kii la sa sag la parce tey xam nga tey wax bu ñëwee ñu ne ah diw lan la fi indi ci xew doomam xam nga kon bu boobaa wooy la boo xam te ne si du fay ba tax na nag moom noonu rek la mën a defee tey xaalis bu ñuy wax nee na dañ ko jël yàq xaalis peut-être ñoom am nañ ko moo tax ndax boo gisee ci wàllum baatare bi nit a ngi toog penn tey peut-être sax amaana amul sax lu mu lekk mais démb moom gis nañ billet yi moom wax dëgg yàlla billet 5000 10 000 xam nga ñoom macha allah comme ni ñuy wax anytime milliardaire moom yoonu nekk si anytime milliardaire yoonu pauvre nekk si ndax man ay pile xaalis laa da laa gis démb ñu koy sàndante ay pile xaalis mu nekk loo xam te ne si peut-être euh, nekk na loo xam te ne doole yemul doole yoo yemul waaye nag peut-être waaye tam xaalis bi ñu xam te ne démb moom baa baatara nañ ko macha allah ah xaalis bi bëri na lool te ay billets yu bees la yu jóge banque te amul ay billets 1000 francs sama genre gi moom xam naa moom bu ñuy anytime ay 1000 francs 2500 dañ koy dàqalante waaye kooku moom Euh, c'était euh, dàqalante boo xamante ne c'est des cent mille des dix mille yooyu doo nga fa doon dàqee mu doon loo xamante ne si peut-être tamit des fois xam nga doole yemul rek comme ni ñuy wax mm-hmm. waaw. doole yemul waaye dara dàqul any time mu Gambie <laughs> léegi yem ay biir five ten eleven ah, yooyu ay bala ngaa laal fifty bi da ngay sonn nag. <laughs> ay ten lañ lay laal. ay 11 10 11 10 11 da ngay weccee ko après da nga naan waa ñii man li ma doon jox lan la. parce que ñoom ñu ngi boo ko indee Sénégal de bu dee saako nga indi de boo moytulee. ci porte koy nga koy mujjee de. kenn Mame Ndiaye Savon Mame moo ñëw jal fa néegub xaalis ne gis ngeen riis naa ñëw gàmbe ñu jox ma lii ci néegu xaalis nii man ko waa baax na donc anytime bu ñibbee de mhm. boo xam ne neex bilia naka ngay def naka ngay jàngate li nga xam ne moom mooy euh, gestu Miss Ndiaye waaye itam gestu sa Rassoul ci seen doom ji di euh, mama ak itam gestu baayam di Abdou Aziz Ndiaye dafa mel ni dañuy jéem a combler vide bi nga xam ne moom la waroon a sànq yaay war a ñëw teewe si bis gisoo ko déggoo ko parce que nekkatul ci kaw suuf dafa mel ni ñu bari loolu lañ ciy jàngat malgré que na am na ñuy critiquer nag xaalis bu bari na ñu ngi koy yàqatee ñu ngi wan néew di doole na leen mënu leen ñun ñoo mën waaw Alioune Badara euh, démb moom macha allah gis nañ la xewoon ca anytime moom mamaa Ndiaye di doom ci Aziz Ala Ndiaye ak Binta dem si yàlla si di ko ñaanal yàlla xaaree ko àjjana rek ak képp kum fa mën a fekk di remercier bu baax a baax tamit Miss Ndiaye ci acte bi mu def ak Aïcha Rasoul mais balaa ñoo ñëw ci ay Aïcha Rasoul ndax Aïcha amagu fi yaakaar naa at bu mat euh, dañuy ñëw ci Miss Ndiaye moom mu fi am njaboot ñëw fekk si ten fekk Mame Binta mu nekkoon ñaareel. Mame Binta nekkoon aawa Mame Binta génn àdduna bàyyi njaboot beeg Aziz ale Ndiaye Miss Ndiaye nag jël ñaar ah, njaboot gi uuf mu doon loo xamante ne Aline Badara yombatul ci dëkk bi dëkk bi gis nga wujjante ni mu fi mettee def nañ ko wujjante saafara wujjante xëppante wujjante defante ba nga xamante ne say doomi wujj sax danga leen di jël boole leen ci defante bi ba doomi baay yu bari ci réew mi juboo tëtuñ kon donc bu jëlee ne eh, bu amee ñett day jël ñett yooyu jox bu dee benn mu xool ci ki gën a ndaw ki gën a féete xale mu jox ko ko kon moom jël na njabootu Mame Binta yi jiital leen ba pare soog see teg toftal njabootam bu doon loo xamante ne dañ koy rafet lu baax loolu tamit leçon la envers wujj yi fi nekk même ñi nga xamante ne seen i wujje ngi dund loolu war nañ cee jël exemple ñu xoolaat xam ne wujj bokk wërsëg la rek Alioune ba euh, ñun bu buñ la wutalee wujj dañoo yokk xeetu yonente bi salallaahu alayhi wa sallam rek jigéen ju nekk boo nekkee jullit war nga def sa bopp te la préparer sa bopp ni ëllëg boo amee borom kër war ngaa mën a mujjee boo nekkee ñaareel war nga mën a xaar ñetteel wala boo nekkee ñetteel war ngaa mën a xaar ñeenteel boo doonee aawa nag yaay doon yaay te xam ne ñaareel mën na la fa fekk ñetteel mën na la fa fekk ñeenteel mën na la fa fekk hmm. lépp boo ko defee sa bopp rek lépp lu ñëw Alioune Badara loolu du la bett kon nag acte bi duñ def lu du rafetlu ko ak lépp lu fa mënti jóg bu dee xaalis bu yàq la ak ñàkk yàq waaye Alioune Badara sa doom bu demee ba toll ci mat am borom kër góor ñëw fekk ko fa ñëw ca kër ga takk ko Alioune Badara loo mën teralee ko ko muy ku góor ki papa loo am lu nekk cent franc ba mille franc ba ki yor milliards ak millions bu xeeb li nga am doom bu jigéen bu téye boppam ba ba nga xamante ni góor fekk na ko fa ñëw jëlee ko fa kon kooku danga ko war a teral xewal ko mu dem sëy ji kër jëkkëram te ñu ñaan sëy bi yàlla na barkeel te bokk ci sëy yañ takk ci aras waaye Alioune Euh, démb la fa gën a rafet muy lañ doon xaar ci diggante Aïssa Rassoul ak euh, Mame Binta fa ndax tey jii nii ba ñuy gis li nga xamante ne mooy témoignage maam ma naan Mame sax safurla Miss Ndiaye mhm. ma leeral ba ñuy gis euh, Miss Ndiaye di def li nga xamante ne moo di témoignage bi te Alsane Mbaye fekkee ko Sala Saw di ñaareel ci Eliman Lam fekkee ko bàjjan ya toog mbokku Mame Binta ya toog dañoo gis ne Aïssa Rassoul nekk fa woon commentaire yi ñëpp naan Aïcha Miss Ndiaye def na loo ko dóor na la 1-0 xamoon nga ni lii dina la dal mais ñu gis démb ci en time bi macha allah ñu gis Aïcha dafa ñëw ak délégation mais ba mu ñëwee Aline Badara dafa ànd ak Ndiolé Tall Ndiolé jiital ko ñu def lu rafet mu ñëw fekk ñu Miss Ndiaye Miss Magam la ñuy ko embrasser ko ñoom ñaar ñu sànn changé teg ay kàddu nga gis ni. foofu noonu mbégte rek moo fa am gisoo fa benn defante bu am si diggante ñoom ñaar mu lay wan ni la rek képp ku doon xaar démb ay sa ñëw toogee na le Miss Ndiaye ñëw toogee na le defante bi mën a am gisuñu ko fa démb te gis nañ tamit man li ma ci gën a neex njoletaal dafa jug di taasu ba muy taasu lan la wax Aïcha Rasoul ak Miss Ndiaye Aïcha nel ñàpp sa mag sa mag ne ñàpp ci yow seytaane randu leen Aziz Ala Ndiaye kontaan ba yëkkatew million may ko ndax loolu day di taasu boo xamante ne Alioune Badara géwal dangaa war di defar mais waroo di yàq géwal boo fekkee wujj ay wujju nekk ci tànt bi bu wane ni wujj bi aaw bi nga àndal wala ñaaree bi nga àndal defaral ka nga àndal nag boo demee yegg sa kër ka lay tere yaa ko xam Aline euh, Pa Ousmane Aline Badara mais bul ñëw ba ci géw bi di wane ni yow kii nga àndal kii nga fësal kii laay way bàyyi kële loolu mën na frustré nit ki ba nga xamante ni loolu day am lu ko metti mais njoletaal dañ koo war a jërëjëf ne ko jërëjëf ne ko jaaraama li nga def mooy yëfi géwal dëgg ndax tey jii ni géwal day fekk fu yàqu mu daal di jël pusoom ñaw mm-hmm. géwal day fekk foo xam amul dara mu def fa dara géwal day fekk ab baadoo a pa Ousmane bu amul dara amul maye cent franc amul mille franc baa xam nga ne am na géwal yoo xam ñoo gën a riche i géer am na géwal yoo xam ñoo ëpp seen xaalis ay seen i géer mais fuñ leen fekk si biir yi néegi si biir nit ñi dañ leen di tagg taggal leen seen i juróom-ñaari maam géer ki bu amul woon lu mu doon may am na géwal yoo xam bu ñu ànd ak seen i géer ñoo yëkkati xaas jox ko bu ñu demee ma la taggee yëkkatil mayal kon ñoom dañoo yàgg di sagal seen i géer tey boo demee ci lu lu mel noonu nag dangaa war a defar may waroo wane fii nga far di way kenn ki di bàyyi kenn ki yow mënoo wax ba doon madame Ndiaye madame Ndiaye ñaar la yow dangaa ñëw woy si kase yow te mënoo fexe fexe ba bokk ca fami ba kon li war Alioune Badara mooy nañ defar li ma time bi daal la ma ci gën a mën a tënk daal ab defaru am na fa képp ku fa indi woon ab gaaruwaare sa gaaruwaare njole taal nee na ko rab ndax taasu ba taasu wane na jël tamit la gën a neex teraanga ya Aïcha Rasoul indi yëpp ne Miss Ndiaye ñoo la ko jàppale kon Miss mooy yaay ndax moo fi nekkoon ba maam Binta génnee àdduna mu uuf njaboot ji mm. Aïcha ba mu ñëwee yàggul te ba mu ñëwee ba tey tamit gisuñu mu yàq dara moom maman dañuy gis seeni foto seeni seen i vidéo xëy na nag wujja nag eh, ni ñu ko jëlee la vidéo yi di génn ñi naan Aziz Aly Ndiaye kii a gën a tàmm wala kii a gën a tàmm mais gis nañ démb daal responsable ah. bi yëpp. waaye war nañ ko fa de bisu ba mu ko may. Hmm? ba mu may kan. <laughs> bisu ba mu may Aïcha Rasoul. waaw ah. yow <laughs> gis nga mm, mm, Kourita Sarr. nopp na xale bi. waaw ah, nopp na xale bi waaye nopp na miis. ah waaye bisu bi live and direct nañ ko xam nga xam nga man la nopp na miis. ba mu takkee Aïcha problème lu mu bëri bëri bëri si miis fitam dem na te bañoon na miis dem. ñun yëg nañ ci lu bëri loo xamante ne am na ba miis toog kon xam nga bëgg na miis. nit boo ko bëggul boo takkee keneen koo xamee bëgg nga ko da ngay bàyyi mu dem waxuñu bañ nañ ko sax mais dama waaw fi may ñëw xam nga loolu bijou noonu ñu leeral ko na sénégalais yu bëri dañ cee dañ cee jàmp seen baaraam mu mel ni rek waa pourita nit boo ñëwee si biir mbooloo nga gis ñëpp ñu fa nekk ñëpp même boo nekkee xale góor war na laa sagal tey jii fa mu biisoo Aïcha war na xëy na jabaram la soxnam la yoon may na ko mu biisu ko mais Pa Ousmane li gën a am solo mooy beddiwul miis na bu ko ne ko sama xewu doom la dama koy jël jox ko ay mbokk yaayam ñu def ko te boobaa miis du si mën dara wala damay jël xew bi jox ko ay bàjjanam ñu xew ko ba mu neex boobaa miis du si mën dara mais xew mi yépp ci loxo miis la nekk toggkat ya lay togg jeudi ba léegi toggkat yi ba léegi la ñuy xew mi mais lépp miis la man toggkat bi ma dégganteeg sànq lépp miis la tey 15 mana lañ teg la ma wax 15 mana biliyaa lañ teg nee na am na payla am na daxin am na mbaxal am na lépp ceebu jën géej lépp te lépp miis mooy wax. xam nga lépp Alioune Badara miis moo organisé. miis daal am na. waaw miis amul amul amul amul morom nañ ko jaajëfal ak benn yoon ak lu mu mënti def gis nañ ni patt na am na organisation am na lépp tontuwul kenn bokkut ak aawa yi nga xamante ni dañuy génn si réseaux sociaux di defante dañuy gis à chaque fois vidéo Aïcha rek mooy daw. à chaque fois da ngay gis vidéo Aïcha rek mooy daw mais xale la da cee toll xëy na mis bi mu si toll defoon dafa ko mais fi mu toll ne Aïcha moom moomee ndax moom mooy ñaareel te moo toll mais xew mi liñ gis moom gis nañ ne lépp macha allah ci loxo mis lañ ko teg Aziz Aly Ndiaye mis la accompagner mis moo xewal euh, maman ak lu luñ mënti wax mis a yóbbu añ ya mis mooy mooy yi mis mooy def lépp bàjjen yeeg mbokk yi nag ay accompagnante rek rek lañ kon nag dañ ko ciy remercier bu baax di wax ni leçon la nañ ci jàng bu baax baax di waxewaat kamet géwël yi nañuy defar géew doo ci nekk di di gaarawaalante hmm. géew du pour ay xeex ay kii yooyu noonu géew pour defar la xew mi nag ca xew doomu awa baaba ci lañ commencé gis ñu bëri di defante ci géer yi ci ci ci ci biir tànt yi di waxalante ci lépp ci micro lañ koy waxee ba dara hmm. nañ gis ni xool ndaal li nday li njole njole taal def daal Alioune Badara rafetlu nañ ko bu baax a baax hmm. njole daal c'est une grande dame euh, quoi qu'on puisse nit la koo xam ne xel mi baax na macha allah yiw la détails yi gars yi nekk yëpp moom du ci njole euh, daal loolu lañ ko mën a waxal loolu rek lañ xam ci moom ñoo moom leneen Pape Ousmane en tant que góor nga gis Aziz Ndiaye ni mu doxale comme ni ko gars jël lépp ne miis am ndax euh, yow la fi lépp fekk yow itam fii la la lépp fekk jëlal lépp nga toxal ba noppi itam teral doomam jaral bu mu taxaw ci biir enetaayam ngir mu fàtte yaayam ji fii wala bokk mu bañ a yëg vide ci côté yaayam ban jàngat ngay def loolu ci côté boobu. waa mais jàngat bi ma ciy def mooy presque booy xool li suñuy jigéen ñi def loolu laay def jàngat mais damay taxaw tuuti ci Aziz. ah surtout ah, Ala Ndiaye nga xamante ni ñun ñi di góor xam xam nañ ni ba mu takkee soxna si mu mhm. ngi nangu yoo xamante ni kenn xalaatul woon sax Aziz def ah. ngi def yoo xamante ni. kenn xalaatul woon mu def. Hmm. du ma ne nëwul miis de. loolu sama yoon xaw ma sax. mais Aziz mi ngi def yoo xamante ni ak soxnaam sii mu takk nii ku di ku jógee Thiès kii Aïcha mii. Aïcha Rassoul. mësu ko def kenn mësul gis Aziz Ndiaye defee noonu parce que Aziz dañu ko xam ak fulla xam ko ak fayda Aziz di snap. Aziz di taxaw di wéeru ci ginnaaw ay jigéen ñu koy defal ay son di way Aziz di enjoy di béggee yooyu musu ko gis euh, a nekk ba mu koy njëkk takk ba bi nekkee. moom noonu la doon def ak Miss Ndiaye. waaw mais man man ci kii gisee. Mhm. man ci kii laa ko gisee. nee naa la sànq si biir yi wax gis si kii di ko def xam naa ni kii delloo na ko ay 15 ans delloo na ko ay. vingt-cinq ans déedéet man ma gis ma ñëw tuuti. li ma gis laa wax rek kim takk moo ko waral Aïcha dafa am benn rôle influenceuse Aïcha lu muy def lu nekk da koy filmer dugg ko moom tamit ci réseaux yooyu. Aziz renaissance la def. Aziz renaissance. aywa ah, góor xaw ma miis nag man xaw ma miis contre ma miis. mais Aïcha mii jóge Thiès xale bi yow góor dafa indiwaat Aziz si yeneen ay ay level. Hmm. Aziz ay level la daa gën a kawe. Hmm. xam naa ni peut-être xanaa mi sa xarit la. waaw ma ko man kat ma li ma gis laa wax. bul ma dugal leen. Aïcha Rasoul bii dëkk Thiès. xaw ma ci kenn. xale bu xees bu cekkete bii macha allah. tamit lool xees la tamit. di xale bu ndaw koy tax Aïcha Rasoul bi boo ko xoolee. xam ni teg la teg xam nga teg. béy bu ndaw béy bu ndaw la. incha macha allah rabbi jabaru jàmbur la elle est gu nekk bu doon sasago nga am jabar ju mel ni Aïcha Rasoul billaahi wallaahi taala aziz nag dafa tebbi la guróloo xam nga góor des fois dina takk jabar ñu ne la ah takk nga jabar mais dangay ngay takk la guróloo des nga takk jabar takk malheur des nga takk jabar takk problème des fois nga takk jabar takk heure mais Aziz dafa takk ay sa rasul gën a maa ko wax te mooy dëkk parce que loolu leen gis yaa ko wax man dama koy ñaanal yàlla Aziz Aly Ndiaye dama koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla dëgëral digganteem ak Aïssa Rassoul parce que man gis naa ne man man xawma ma miis maa ngi ñaanal miis jàmm ak salaam mais li ma gis laay wax man mosuma gis miis mu ànd ak Aziz def ay vidéo mais li ma gis Aziz ak ay Aïcha lune de miel àndandoo demi luy ko Aziz lonk ci ginnaaw nga gis kanamu Aziz gi nga sentir nga gis kanam gu heureux kanam goo xamante ni Aziz day bëgg Aïcha day Aziz man lool laa gis man. ah li ma gis laa wax. baara daal daal xoolal baara. li ma gis rek laa wax. Ah. wax dëgg dëgg dëgg fa yàlla xoolal xoolal boobu boo gisee photo yi Aziz léegi day sol ay cap Aziz day sol ay jiin Aziz léegi day. Ah, day eh, day danaa sol loolu man eh, non non non Aziz dafa delluwaat vingt ans. waaw loolu nga jàpp. Aïcha daf ko delluwaat vingt ans muy màcc biberon Aziz day màcc biberon maman yi. moo tax mu fóon Aïcha devant tout le monde. yaa ko gis parce que il est amoureux de Aïcha. loolu yàllaa koy def comme si je n'existais pas elle est passée à côté de moi. second sourire mu yegg ça va Aïcha Aïcha écoute-moi mais Aïcha Aïcha aime beaucoup Aziz Aziz aime beaucoup Aïcha révélation de Pape Ousmane Ba. loolu ku mu neexul topp barki Seydina Mohamed Aziz dafa bëgg Aïcha. Aïcha dafa bëgg. Ousmane koo bëggul doo ko takk jëlee. ak c'est normal jabar la. ci kër ga la ne di sëy jabar la Aziz da koo bëgg. da koo bëgg la. Hmm. loolu am na. waaye man li ma gis si Aïcha laa ko gis. te ci Aïcha la koy témoigner. bu la neexee Aïcha la thiessoise. eh waay Sam elle est très belle. ah waay Aïcha la thiessoise. mu ni elle est magnifique. Aïcha madame Aziz Alen Ndiaye. une dame de fer. Hmm? Aïcha ba nga ñëwee ba léegi dañoo gis ne Aziz sax dafa gën a suqaliku. man de loolu laa gis man man loolu laa gis. Aïcha viens voir kii Pape Ousmane. man loolu laa gis. léegi nag dama leen di ñaanal. viens voir. moom ah, ak Aziz Aly Ndiaye Aïcha jox ko ci million ak Aziz Aly Ndiaye Aïcha Rasoul ñing eh, madame Aziz Aly Ndiaye yàlla na yàlla musal leen ci cat musal leen ci làmmiñ Aïcha ngi noonu lii nag sa diggante ak eh, Aziz eh, Ndiaye nag mu neex nii Aïcha ngi noonu la fàng fàng bakkanam parce que yéen ñaar seen diggante daf rafet teraanga ji nga def nag weeru koor bu jot Aïcha Rasoul ñing ngay jàppale daara yi di def ay social ñëpp ah, di ko wax ci àdduna Cees fa nga dëkk seedal nañ la loolu mm. nga nekk nag jigéen joo xamante ni jigéen gu macha allah gu brave nga ba pare xale bu ndaw nga ju doogoo de ay sa rasul ju doogul dese na ko lu bëri elle vient de commencer am na ñoo xamante ni commencé nañ ba àgg ay rond point mais moom commencé ko eh, elle vient tout juste de commencer mm. ba pare nag jëkkëram bëgg na ko loolu Aziz Ala Ndiaye ah, léegi nag dañ koy ñaanal def nii mm. moom dañ koo dooleel jigéen day def dañ lay dooleel boroom këram moo ko dooleel yëkkati alal jox ko ko ni ko defal mu def kon nag moom lépp lu ci mënti am rek na ko santee ki nga xamante ne mooy Aziz Aale Ndiaye ndax asis Aale Ndiaye moo ko jàppale mooy nopp bi wolof Ndiaye dee la jëkkër na la nopp bu ah. la jëkkër nobee loo yóotu jot ko jëkkër na la nopp nopp na miis de moom nopp Aïcha te nag Aziz Ala Ndiaye dafa nopp Aïcha maa wax li mis tamit wil kurita mu taasul la ko maa wax li taasu intellectuel la la koy taasul baara jël ko mu taasul la ko taasu intellectuel la ci kër na la nopp bu la jëkkër joye loolu soo jot ko jëkkër na la nopp Aziz Ala Ndiaye dafa nopp Aïcha Aïcha nopp Aziz de dëgg la eh, plateau bi tag na yow waaye namante neex waay Aïcha Gningue yaa nga fi téwér kenn di yow ci biir réew Aïcha yëngal nga Sénégal yëngal nga àdduna bi waaw yaa baax miisit na fi yàgg lool te ànd ak wér waaw jërëjëf Pape Ousmane lépp rek bonooru Aziz la ñuy wut Aziz yow del am jàmm rek ndax dangaa baax Aziz moom <coughs> Aziz il est exceptionnel. sa sa sa gars la jàmbaar la liggéeykat la donc yàlla na sëy bu barkeel. mais aussi waa Géejawaay mer nañ parce que nee nañ daf ko waroon def ci kër ga ndax fa nga fa doom ji yaroo màggee fa defu ko fa déggaat naa it Géejawaay ga ma nekk ndax fa laa yeewoo fan yii yëpp nee nañ dañ fa mësoon def xew ñoom seen famille agresseurs yi ñëw fa tas ko. Ah. moo tax it ñu jël affaire bi déporté ko yóbbu ko kon nag. Ah, la la génn fee ci ay millions démb. Ah, ah du ma ni bu doon fële de ah man du ma damay ñibbi après côté bii lay jaar. Ah. léegi du ma ni bu doon naa ci nag sama yoon nekku ci waxuma waxaat. ok ah, bu boobaa kon duñ leen mën a doon dara. millions yi fa génn dem. loolu ci baal ya. yàlla dooli sutura. yàlla sëy bi barkeel te ànd ak njaboot bu barkeel te yàlla bu ci cat dugg rek leen koy ñaanal moom euh, soxna mama dañuy jàll jóge ci Sénégal jël avion bi ñun ñëpp ñu àndandoo dem ba Guinée fekk jëfale Faramareen Wally Ballago Seck en Guinée bi mu ne cëpp Guinée dañ koo teeru Wally nag dañ ko doon teeroo comme président ah. Pape Ousmane ma fàttali sa wax ji nga fi waxoon bi nga xamee ne gars yi ñu ngi doon def campagne de diabolisation ñoom waa Guinée yenn influenceur Guinée yi naan Wally du fi ñëw bu fi tegee tànkam on va nangam on va nangam ba benn artiste ba nga ba joxoon ay conseiller artiste bu con boobu defoon yëppam yooyu fële ca. suul xaw ma nu mu tudd. suul banks waaw suul waaw suul banks turam bi sax dama ko xam. suul ba nga ni concert bi day am. Mhm. ndax Wally Seck Wally international. sa wax ja nag ñëw na tey ndax Guinée ngay toj. waali jamono jii léegi comme président biir Guinée Guinée yëpp nee nañ ko waaw man jàngat ngay def.